ci discours à la nation bu njiitum réew mi Macky Sall bi mujj amal na ab bilan boo xam ne moom jàpp na ne dafa baax ñeel wàllu njàng meek njàngale mi waaye ci gëtu enseignant yi nekkee ci daara yu kawe yi liñ doon xaar ba tey matewul CUSEMS si moom di dikk ak ñun ci ñàkk ay jàngalekat. ku dem dugg ci école yi daa nga gis ni kat la dafa bari infrastructure yu doyul jàngalekat yu doyul loolu moom moo tax booy xool ñu am ce qu'on appelle des effectifs yoo xam ne yi intenable évaluation kenn mënu ko def ni nga xam ni si anam yi nga xam ni loolu lañ ko waroon defe table banc doyul di didactiques yi doyul donc li manqué ci système bi bare na bare boo xam ni bi suñ lay wax ni la éducation mooy premier budget sax yow sa bopp quelquefois da ngay poser wu question ni en fait donc moyen yooyu anam fu mu dugg lu ni mel tam lañ nemmeeku ci waa SAES secretaire général bu section faculté des lettres moom nag mu ngi ñaawlu tëj gi ñu tëj université yi. Euh, dëgg la euh, léegi Sénégal yaatal nañ ko am nañu ay euh, université yu bëri loolu lu baax la waaye problème problème bi mooy problème équipement parce que boo defaree ay université il faut nga nga nga defar ay ay infrastructure il faut aussi nga équiper ko. équipement surtout domaine scientifique bi xam nga ni équipement moom nekk na li nga xam ne aussi lu lu xaw a diis la. Euh, ba léegi daal situation bi mi ngi nii mënuñu reprendre mais li nga xam ne ñun loolu lañu jàppoon c'est que octobre waroon nañu reprendre mais malheureusement ba léegi mënuñu mënuñu reprendre. ngir ñu amal année scolaire ak universitaire bu dal te ñu jàng CUSEMS ak si jàpp nañu ne dañoo war a jeexal yooyu leen jàng. gis nañu tamit ne dañoo war a indi ay coppite yu am solo waaye tamit jekkalaat lii di système éducatif bi waaye nag leneen li mooy ñu dal di fexe ba enseignement général bi dal di dëppoo ak formation professionnel bi